ginnaaw ñetti fan yoo xam ne xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir amal na ko ci kaw Kaolack ci ak ngan sëriñ bi nag bàyyeekoo na fi ci ajuma ji dëppoo le 31 janvier 2020 ngir dem ci dëkk bu sell ba di poroxaan ngir waajal màggaluk soxna jaara gi sëriñ bi nag ginnaaw ngan gi mu mel ni taalibe yi nekk ci Kaolack doyaluñ ci ndax ànd nañu ko moom gunge ko waaye sëriñ bi laata muy génn ci kaw Kaolack am na bërëb yu wuute yoo xam ne dem na fa ngir nemmeeku kilifa ya fa nekk feddaliwaat ak kóllëre gi nga xam ne doxoon na si digganteem ak ñoom Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Bachir ak mboolem délégation bi mu àndal ak taalibe yi ñu njëkkee fi nga xam ne moom moo di kër Alhaaji Seyni Seck mi nga xam ne moom moo nekkal xalifa général des Mourides fii ci daanub Kaolack moom nag diirub ngan gi mu ànd kook mboolem jëwriñ ni nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi lépp loo xam ne moo war ci fànn googu mu taxaw ci temm ànd kook taalibe yi sëriñ bi nag dem fa daal di koy nemmeeku waaye it daal di koy ñaanal sëriñ bi it bu fa bàyyeekoo dana dem ci fi nga xam ne moom moo di kër sëriñ Maalum Jaw mu nekk kilifa gu mag a mag ci diwaanub Kaolack fekk fa ki nga xamante ni moom moo di sëriñ Modou Mbacke Jaw mu nekk moom it jëwrin ci liggéey bi liggéey liggéey bu am solo moom it ci diirub nganuk Cheikh Mamadou taxa ndax keroog bi sëriñ bi ñëw bokk ci ñi nga xamante ni teertu nañ ko sëriñ bi ñëw fa fekk fa mbooloo mu takk lool di ay taali bi ak mbooleem njabootu kër sëriñ Maalum Jaw gi bi sëriñ bi bàyyeekoo ci kër sëriñ Maalum Jaw ci la dem ci ki nga xamante ni moo di El ba siiru Dia moom it nekk kilifa gu mag ak jëwrin sëriñ bi dem fa daal di nemmeeku ko ziar ko waaye it feddali kóllëreem ak digganteem ak kilifa googu ginnaaw bi ci la Cheikh Mawdul Muntaxa Mbàkke Bachir bàyyeekoo ci bërëb boobu daal di ñëw fi nga xam ne moom moo di ci Passoire Passoire nag ku ko wax sa xel dem ci Serigne Moustapha Mbàkke Abbas di jëwrinu Serigne bi liggéey liggéey bu am solo moom it ci diiru ngan gi waaye fi nga xam ne moo di rond point Serigne Moustapha Mbàkke Abbas sàkk ko ci kilifa yi bañ may ko ko ñu tuddee ko Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbàkke Bachir màndargale ko jumaay Tuubaa ji waaye it sëriñ bi jébbalaale ko li nga xam ne moom moo di cere yi muy waajal at mu jot mu jëm ci màggalu poroxaan gi ak ay nag yoo xam ne lépp sëriñ Moustapha Mbacké Abbas ak mboolem taalibe yu mu àndal ci Passoire ak ci kaw Kaolack waajaloon nañ ko ngir jox ko xalifa général de Mourides sëriñ bi bi mu bàyyeekoo ci Passoire ci la daal di dem ci fi nga xam ne moo di Cassaville dem jaale ji El Hadji Idrissa Gueye mi nga xam ne dafay bàyyeekoo ci samdi bi ñu génn mu nekkoon koo xam ne jotoon na fee nekk président chambre de commerce bu kaw Kaolack waaye nekkoon kilifa gu mag nekkoon it taalibe sëriñ bi jaar fa jaale njaboot gi ñaan fa laata mu fay bàyyeekoo ak mboolem taalibe yi nga xam ne doyalul ci ngan gi gunge ko ànd ak moom ci mbeddu Kaolack yi ngir sëriñ bi jubal fi nga xamante ni moom moo di ca poroxaan